Sénégal defar fi dafa Kujuk ku di def dina am ku di gas dina am ku di sul. di dina am donc ñu réellement ñun li mo ñu ay jeunes yo qui te bëgg seen réew seen réew mo leen fi problème nga say rendez-vous bayyi sa bureau bayyi say employé bayyi ñëw tok Sénégal mo ñu Euh, man mii di wax nekk naa étranger yàgg naa fa euh, nekkoon naa États-Unis nekk naa France jot naa expérience foofu xëy na tey bu ma doon topp confort wala lu yomb damay toog foofu ndax dëkk la boo xam te ni lépp am na yow sa secteur ngay nekk rek liggéey ñu lay fay salaire waaye nit ku nekk sa réew dafa am ci yow àq te kenn amul droit wan sa réew ginnaaw yow nga tëdd ne man kat comme man maa ngi am jaam rek wasalaam déedéet sénégalais bu nekk te je pense que ndaw ñi moom loolu la ñu wane ci li nga xam ni amoon na fi fan yi mooy ne Sénégal bu wootee ñëppay jug Sénégal bu feebaree ñëppay feebar Sénégal bu sonnee ñëppay sonn kon ñun Sénégal moo ñu ñor te lépp li nga xam ni suñu kéemtalaay kàttan la. mën nañ ko def ngir jàppale ndaw ñi accompagner leen euh, di leen gindi di leen war yoon di leen jàppale ci financement ak ci lépp loo xamante ni mun nañ ko def pour maanaam euh, dimbale leen ñun duñ ci xaar état duñ ci xaar kenn waaye nag li ñuy def euh, képp ko am xel dina xam ni ñi ñu koy defal tamit mooy ñi nga xam ni tey ñoom la yàlla teg Sénégal ci seen loxo ndax nit. loo mënti mel bu yàlla tegee réew ci sa loxo euh, soxla nga boo demee ba xamatoo nit ñu ñëw gindi la te nit ñi la war a gindi mooy ñi nga xam ni ñoom ñoom la mbir mi concerné te ñun jeunes yi loolu moo expliqué démarche bi nga xam ni def nañ ko ñu ne dañuy woote diisoo ngir ndaw Sénégal yépp dajaloo bokk ndey bokk baay toog waxtaan te xam ni réew mi lu mu métti métti métti métti bu ñu ko waxtaanee. solution dina génn ndax Sénégal dëkku waxtaan la dëkku diisoo la te lu fi mës a métti métti dañ ko toog waxtaanee wuti solution dem waaye li leer mooy li nga xam ni noonu la ñu doxalee Sénégal ba mu yegg si fii loolu mënta continuer loolu moom nañ ko waxante dëkk politique boo xamante ni sur le plan politique bu ñu doon décrire tey Sénégal dañ naan Sénégal gérontocratie la gérontocratie mooy dëkk boo xamante ni ndaw ñi dañ leen di jël sànni fële ay mag magay dajaloo ni ñoom lii la Sénégal doxal ko te ndaw ñi nga xam ne ñoo ñoom la yàlla jox kàttan jox leen ay xalaat jox leen mën-mën ngir ñu doxal Sénégal ñoom dañ leen di bàyyi fële rek ñoom ñuy caaxaan donc ndaw ak caaxaan c'est pas synonyme du jaage ni ndaw ñi fo rek moo leen tax a jug ndaw ñi bëgg nañu liggéey te ku déglu Jean Ababacar Siddiq déglu Moustapha Kandji déglu ñi fi toog ñëpp li nga xam ni ndawal Sénégal nous ñu fayda ñàkk ñu jom te fait des ginnaaw ñu ngi jug ñu ngi xeex kon nag tey euh, xëy na li des mooy ñu déglu leen jël seeni xalaat remonté ko Nous ko remonté première qualité bi ñuy xaar nous, moom mooy déglu donc nañu déglu nit ñi nañu déglu ndaw ñi bu leen solution dina génn te Olof Njaay day wax ni dëgg la nous mun na ndaw mun na koo for waaye man nag li ma jàpp mooy dëgg ji tey puso bi ndaw ñee ko for kon nag nañ déglu ndaw ñi topp leen ñu wax fi Sénégal bi ñu bëgg ngir tey ngir ëllëg di leen gërëm ci teewaay bi te di leen jënkalu euh, retard yi ñu am waaye loo xam te dañ ko sos bees mënta ñàkk am ay kawaab defuñ ko pour ñun kase ñu nekk ci taabal bi dañ ko def ngir ndaw yëpp xëy na mënuñu woon dajale jeunesse sénégalaise yëpp ci saal bi waaye danañ dem fekk si leen ndax loolu moo jaadu comme ni ko Mouhamadul Moustapha Kandji waxee euh, nit boo ko bëggee xam li muy dund da nga koy fekk ca mbaaram ba muy bayee wala ba muy tëggee kon ñun loolu mooy suñu démarche kon tey ñu ngi annoncé juddu comité d'organisation assise citoyenne de la jeunesse nga xam ni mun nañ ko dippoo diisoo ndaw Sénégal donc ñun dañoo bàyyi suñuy euh, suñuy yëf

partenariat yi donc euh, Salim Badiane dina ko annoncé bokk na ci euh, le groupe consortium Sénégal consortium jeunesse Sénégal CJS nga xamni ni euh, suñu xarit suñu frère Sobel Ngom moo koy dirigé di jeune bo xamante ni macha allah yàgg naa def ay jaloore ci jeunesse yi di yàgg leen impliqué d'ailleurs

organisation jeunesse yi nga xam ne yëpp ñu ci Sénégal ñu ngi leen di woo dinañ dem waxtaan ak ñoom gisee ak ñoo xool partenariat ndax lii du liggéeyu benn nit liggéey bu diis la te ñu ngi ñaan ñëpp ñëw jàpp si kenn moomu ko ndaw Sénégal bu nekk Foundiouly ba Tamba ba Kaolack ba fépp ci Sénégal dinañ fa dem du ñu bàyyi fenn incha allah dañoo jël euh, xar suñu tànk tubéy ngir mission bi nga xam ni ñun ñoo ko teg suñu bopp incha allah ñu matal ko ba deux mois deux mois yi nga xamni mom la nar dérouler suñu plan d'action buñ ci paré ñu mëna ñëw avec un document bo xamanteni ni dinañ ci résumé solution yi nga xamni gis nañ ko pour ndaw ñi inshallah ci diine rek liggéey dafa am solo aduna ñaar ma fi nekk mooy liggéey ak jaamu yàlla euh, man maa ngi jógee ba Touba maa ngi tudd Serigne Fallou Mbacke ma jiite Assirou point net global média aussi maa ngi ci benn yeneen secteur d' activité te boo nee Touba ne Bawol. te boo nee Bawol aussi xam ne ñu nangoo liggéey lañ parce que da ngay gis ay jeunes yoo xam bu ñuy jógee Touba wala ñu jógee Bambey wala ko bu ñuy ñëw Dakar mën naa ne vingt cinq mille la ñu commencé liggéey ci lañuy wut gameel di jaay kafe di wër di am dara xam comme ñooñu xaaruñ dara ci état kon Touba tey booy xool village la woon ay nit ci bay ak liggéey ak jaamu yàlla ci lañ nekkoon ba tey Touba nekk deuxième économie du Sénégal kon loolu rek war nañ cee mën a roy ne réew mi bu ñu ko bëggee jëmal kanam ci suñ am nañ ay model yu ko développé ndax bi sëñ Touba di sëñ Touba Touba bi ñuy nekk dakaar ak Saint-Louis ak gore def quatre commune te tey liggéey murit yi liggéey nañ liggéey boo xamante ni Touba looy jaay ci àdduna bi fa daanaka fa lay jaay kon loolu rek exemple la am nañ exemple yoo xamante ni war nañoo roy ci ñoom pour euh, réew yi mën a jëm ci kanam modèle économique boobu il faut nous inspirer wu pour mën a Sénégal Le ci tamit mooy il faut état bi accompagner nit li lii gi wax légui amna solo moy état mënta tawutal ñep ay ay financement mais warna encadrer secteur bi ba ku ci nekk boy def dara di nga gis sa bop ci li ngay def parce que bo gisee eumadi di xex yi amone yep lool la parce que amna dëkk yooyu dem ci aduna bi xamuñ président bi sax xamuñ ko parce que seen secteur d'activité mi ngi dox kon réew mi jafé jafé yooyu ñu am il faut tamit lu mel ne lii ñu arab yi ñoom am initiative def ko waxtaane waat euh, xëyum ndaw ñi bañ cee xaar daray état ku nekk war a jóg kere sa entreprise wala domaine activité boo nekk euh, ñu encadré la ca ci ay xalaat ci ay gis-gis def naa loolu mooy développer Sénégal ci wàllum mbay mi tamit Sénégal li gën a mën a développer agriculture la cee bokk mbay te loolu commencé tey bu yàgg yàgg la commencé avant indépendance mag ñi bay rek lañ xamoon bay dunde kon lu mel noonu aussi war nañ leen ci encadré parce que fi dafa bari baykat yoo xamante ni di li ñu naan baykat dimanche lañ rek te booy xool chaque nawet bi buy waaj jub si jiwu yi sax ñoom lañ koy jox te fii la ñuy toog bu ñu ko joxee ñu jaayaat ko defuñ dara kon réew mi depuis indépendance ba léegi liñ fi ne financé nañ fi ay projet kenn xamul nu mu toll li fi dem ci ay milliards kenn xamul ci lu mu toll. kon nag il est temps ñu xam ñiy bay ñiy liggéey ak ñi nga xam ne dañuy góor il faut ñu ràññee loolu parce que am réew tamit mënuñ koo defar ci ay naxe ci ay naxaate ki ay séminaire ak yooyu loolu développé Sénégal de te fi na nii nag dañoo toll foo xamante ni dëkk yi ñu maasi loon yëpp raw nañ te boo demee ay Corée du Sénégal leen ëpp ay ressources foofu te ñu leen raw amuñ pétrole amuñ gaz amuñ dara te tey ñooy nim daanaka neuvième économie mondiale ay Maroc ay dëkk yu bari ñu góor góorgóorlu kon ñun tamit am réew ñun ñoo ko war a mën a defal muy secteur privé bi informel bi ak population bi ñoo mën a développer dëkk bi du état si mais état tamit il faut ñu nekk ay référence yu am solo ba mën a doxal réew mi lépp ñu jaarale ko ci yoon ñëpp tolloo seen ay àq kon donc ñun ñu ngi nekk côté Diender eh, di bàyyi foofu ñëw commencé ci benn hectare wala lu matul hectare commencé di développer mooy li nga xam ne mooy bay ak sàmm tey actuellement nii ñu ngi ci 23 hectares yoo xam ni donc gis-gis la woon wala vision boo xam dañ ko amoon gëm ni nit mënul am njëriñ lu muy dafa dellu ci cosaan muy suuf donc loolu suñu gis-gis la woon suñu gëm-gëm la woon mais lu metti la woon nag ci début bi loo xam ne tey ñun dañ ko dund

te lu la mais nak lu jafé la il faut que nga dëggal sa bop d'abord pour que nga xamni donc euh, njëriñ baangi ci suuf donc ma ngi wo képp ko xamante ci jeune la surtout ci jataay yu melni donc euh, ñu fekk ci leen ci xool secteur bi naka lañ tay organiser parce que tay bo dimanche passé rek dama lo xamni man mako dund man personnellement dama and ak ay nit ñu tal suñu auto dugg ci àll bi mais dama dem ba ci yàgg ma arrière du joy lu tax parce que da ngay xol Sénégal tout temps nit ñi dañuy wax problème lekk problème lekk alors que pour man jeunes buñu liggéeyon rek Sénégal tay nit bu amé 500 francs war na mën a lu ko neex donc donc kon y a problème c'est quoi le problème mooy problème organisation la ak jeunes am ñu leen ñew accompagner leen fekk ci leen fi nga xamné ci si leen nekk pour mun leen organiser bu ko défé Sénégal lepp naat. lépp jëm ca kanam mais en tout cas mbay moom nit mënul def du ko gën a baax ci àdduna loolu moom man personnellement lu ma dund la te toog naa fi ay ana jékki-jékki bëgg takk samay bagage pour dem comme ñëpp niñ koy defee sama grand frère woo ba mu ñëw mu ne ma ah suuf saa ngi nii lépp ngi nii donc yaa ngi togg ba mu ñor nga bëgg ko bàyyi dara desul lu dul yàq nga bëgg ko fi bàyyi dem ma ne ko mais si bu fekkente ne si man ñëw naa ci dëkk bi par génné lu melni tomate génné ci presque quatre tonnes donc amu marché bu ma ko jaayee gisuma ben entreprise bo xamné ne def naa man partenariat wala dara donc ben option la am moy gàddu ko dem taxaw ci marché yi garder la de gauche à droite donc lolu encouragé wol ben jeune nañu waxante deug Sénégal pour ñu def ko pour ñu défar wala pour ñu développer mbay mi il faut que gaay wacc sur le terrain bu deug rek dee deug donc ñu wër fi bagage yi wacc ci terrain bi doom liggéey xool ñu ne lañu la liggéey mais jeunes ay jàmbaar lañ te xam nañ ñu bëgg te xam nañ fi ñu jëm xam nañ ñu bëgg te xam nañ fi mu jëm te ñu ngi ci am ah. donc li si des nag mooy bon vraiment suñu njiitu dimbali leen vraiment fekk si leen donc loolu mooy acteur donc Aziz yi aussi tamit diisoo mooy li ma wax sànq ci commencement bi nit ki pour nga xam problème am il faut que nga fekk ci mbaaram bi muy tegee wala bi muy bàyyee donc lu mel nii donc li tax ñu mën si ñëw sax mooy lépp dañ ko teg ci cadre waxtaan donc man bu nu ma laajee lan ngay def donc mun naa ci expliquer dafa nekk ay loo xam ne lu palpable la lu nit mun a teg loxoom pour nga joxe loolu pour yeneen nit ñi mun si jël comme en tant que référence pour xam ni donc li royal la lu mun a nekk la lu mun a développer dëkk la donc maa ngi leen di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatulah.